guys what up guys how everybody sama guy <laughs> boy you look a lot boy damay xoolee ni man Alioune what's up ba fi ndekki time la quoi tu vois waaw si nee na jàll xam mënu ma koo bàyyi moom moom moo fal Macky Sall waaye nee na sa table ji wéet na nag fu mu ne nii oui <laughs> frite amul frite amul sauce amul gaal jaay mu ndekki tëdduwaat man non waaw yow man frite ah lan nee na mais mais nee na nee na nee na xam nga tey xam nga tey xam nee na man dë dëj yi ñuy ngeen ngénte moom ma jaaxal man ah ah mais man man man xool ñun bi ñu nekkee booy bu ñu tàggee kenn si dëj euh, si koñ bi di nga toog semaine koñ bi kenn du yëngu te léegi plus grave la ma la grave nit nit day nit day dee fii même pas cinquante mètres ñu ñu ñu bu ñu xew seen xew bi école ñu ne ñu musique dañuy xew musique man de dé dé dégg léegi tiitalul ken man de suma bi bilaay ko tek musique balal ma la te suma dee tamit ñu dem sulma ma gas kàmb gi dóor poftan bi sulma nga ñew sama kër di abay barada kas balu ma la man yoy mom suma na ko sama yalla man yalla dee si avion sax ñu bañ gis sama koor li metti na trop non mais nit ñi mais nee mais nit ñi am nit ñi ragal tuñu yalla ah non de de de dafa nek tis bu ñu dee ci koñ wa koñ bu ko ressentir ko am ko am xew nga fomm nga mais nit dee ah bu ñu ko sulu ye ñew non ñi non man dal vraiment na al ñu barada kas ak jox ma jox ma si waaye ñii ñooy mbaam xuux ma daal su ma dee xool su ma dee laal loolu dama la koy dénkaan ngir yàlla damay dénkaane damay dénkaane waaw maa la payé léegi léegi déglu ma laali laali su ma dee non man su ma waa léegi su ma dee bu la mësul deux heures bu parce que du loolu deux heures rek lépp dina baax booy laale non booy xool dama ne su ma dee non bu ma suul rek. waaw jënd ma waaye laay xool mais dëj ngeen dem di ko def xawaay mënu leen ko bàyyi. yéen lépp géwél yéen yéen géwél la togg yóbbu leen fenn fan kaas dafay de mënu bàyyi si ngeen def. Ah, loolu baax na ah loolu baax na si néew bi sax. loolu baax na si néew bi. <laughs> néew bi kan ci gis na. loolu <laughs> kay baaxul si néew bi. nee mu doon eh, dara dama la doon rek dama la doon doxaat mu <laughs> way sama ndey way ima ima mais léegi nag léegi géwél yi seen affaire baaxul de géri géri géri ñoo leen taxawayaan de bala gis nañ Bamba géwél yi dañoo war a grève géri ñoo gën a géri ñaan ëpp na ah dëkk bi ah waaye li café Touba bi gars baa ngi di xoolal barke sëñ Bamba Sénégal moom métti na trop mais nag <laughs> bu ñu yeewoon nañ dëkk Sénégal nee na yaa waat kii indépendance bi waaw man indépendance laa gisul indépendance moom ne amoo sa su bopp sooy xeex tubaab yi lay àtte soo gañee soo gañee élection yi bala nga dem Touba ak Tivaouane France ngay jubal si Macron waaye indépendance bi <laughs> fête de l'indépendance kay ooy <laughs> sa élection ne boo gañee sa wasila nga jëm sa wasila Macron mooy sa wasila fa ngay jëm mu ne loolu eh non booy bul dof bi xoolal ni koy defee de <laughs> pétrole bi xool ni koy defee de te bëgg naa bëgg naa maanaam route nationale bi eh moom naka ma bëgg naa route national bi multinationale euh, euh, française yi nga fay taxaw non lii mooy loolu quoi sama gars yi kaay leen dégg waaye ma la loolu quoi te ñu waajal feetu dépendance bi xam nga Sénégal kañ la am